ami cheikh internet bu Dakar net dal leen ak jàmm boo leen ma gisee fi ma taxaw xam ngeen ni macha allah piscine bu neex la damay sax yàkkamti dugg mais tey balaa ñuy dugg faaw ñu dugg ci leneen li nga xamante ni moom mooy suñu waxtaan tey kenn lañ war a dalal koo xamante ni askan bi ñëpp bëgg nañ ko à travers ci lépp lu muy def duñu ko sax présenté après moom mooy dugal boppam wax ki mu doon waaye ci li fi ko dalal rek bokk na ci seen émission bi nga xamante ni mooy waxtaan ak. ni nga xamee concept bi waxtaan ak mooy képp koo xamante ne rek yaa ngi yëngu ci lu baax képp ko xamante ni aussi am na ay action yu rafet yooyu mënee ci àdduna bi ak fu mu mënti doon sax dañ dafay fekk ak votre serviteur Davida léegi léegi la xaar leen ma topp leen ma mais kaay yow kaay yow lu dal lu la dal mais kaay xanaa amoo combat yow relax fii bu ñu entraîné pare dañuy relax non mais mais mais yow xam nga fi ngay nalawee lu ne mën na la fekk saa waay saa waay mi nga amal combat du ma ko tuddagum instant bi mi ngi lay wër nag waaw waa ji kooku am na lu ko day day dawal moto du sol masque day dawal moto du sol casque moom sans bi e, en dafay promoteur bi yóbbu waa CNG na ngay amee contrat war a bëri ak man dawal moto solo casque nekk ah, ah, na ko fay dem mais loolu baaxul ñun bëri na war nañ xool day sol casque ma sol casque ñun ñëpp tey ñu toog wax casque lan mooy casque bi moom la dalal de son vrai Big Pato mangoog maa leen ko waxoon waaye ba tey dafa ma jaaxal li ma ko yee taxul ba tey mi ngi continuer nalaw te pourtant dafa am combat ak Alaaji Mbaay man nag damay wax lu dul tàpp ko rek ne ko gaañaan ba tey yaa ngi ci biir émission bi ku baax ki jógal waay. <laughs> lu neex nag bur bur na ko ba mu def dafa dugg moom. <laughs> waaye yow am combat di nalaw nii doy na waar de. mais. Euh, auzu billaahi mina shaytaani rajiim laa hawla wa laa illaa billaahi al-aliyyil aziim ba nuyu sama waa ji mais lakkal nga ma doomu ndey Gaétan. dama gis affaire yi doy waar fii féex bi dugg la. Gaétan s'il te plaît dis à ton ami là de me laisser me reposer moi aussi je prépare combat et et des combats même dañu nuyu suñuy kilifa dañuy li ñu njëkk def tam mooy sant yàlla baax jul seen gërëm suñu ñaari waaju aussi nuyu suñu kilifa nuyu le président de la république gouvernement bi le ministre de l'intérieur di nuyu le directeur général de la police inspecteur général de Ousmane di nuyu samay supporters ni may bëggee Big Pato national ak international bi yëpp di wax ni ay mbër lañ ay sportif lañ mais sport nag dafa am lu laaj li ma fekk nii piscine dafa bokk si sport ñëpp yàgg nañ ma gis may def piscine mais relax aussi ci la bokk parce que dafa am programme boo su ma ko defee ak coach ba pare rek dafa may jox benn affaire ma toog ci benn 30 minutes wala 15 minutes moom du ma def dara relax pour concentrer wu pour mën muscle yi amu ci ma dugg waaw lool moo tax nga fekkoon ma dugg mais nag meroo mere naa la lool <laughs> fu neex nga ma fekkoon ma nga yàqal ma ko. combat bi day rëy na lool ci man nag parce que nag combat bi moom dafa ci lool lool ci man parce que dama xam ne sama kilifa de bëgg nañ ma te na loo xam la ko mayee rek man j'ai plus le droit à lépp lu ma doon def dama koy gën a yokk ci côté bépp nag ci côté bépp nag laa wax combat bi moom naa ci joxe bakkan lu mu laajee naa ko si joxe. parce que gis naa ne waa police bëgg nañ ma te ñu ngi may jàppale te ñu ngi may encouragé douane aussi gendarmerie force de yëpp laay wax civil aussi maa ngi gis ñu ngi may encouragé ci lu def yëpp kon daal lu may def rek mooy gën a góorgóorlu di wax ñi may jàppale muy Sénégal ak bitim réew muy États-Unis mais Ami Dia ay ñoom Ndeye Diallo nga dem France ay ñoom Fatima Diallo waa Bondi ay ñoom Robert Braza ay ñoom Pape Kouly Diop ñoom Kara Mbodj sama ginnaaw ah. ay ñëpp vraiment Pape Kouly ma leen fa Biram Sarr ay ñoom. Abdoulaye si ñoom Aliou Tall ak Dansoxo ñi ma daan jàpp ak grand Talla Mbengue ndeysaan ba démb rek ñu ngi gisante di wan daal li nekk sama ginnaaw bëri ah, di sama yaay ñoom sama papa ma yëpp wax yokk ñaani rek ñoom bombardier ñëpp ah vraiment leen bi daal xam naa ne na moom lu ma liggéey rek war naa ko xeeb waaw nañ ni lii ngay wax ni ñu ko daan def en général mooy ñu ragal ñi ñu tiit ñi ñooy teel a di woote te sëgguñu yow instant bi dafa mel ne Alaaji Mbaye da laa xaw a jekku ci ci psychologique bi non combat moo ko laaj li daloon wul rek daf ma dal parce que xam nga boo daanoo ci combat yi ñi doon bëral yaa leen man yaa leen gënoon fonk entraînement yaa leen gënoon pare physiquement aussi bu ñu la daanee loo jëmaat rek li naan ku ndóobin rey sa maam boo gisee lu ñuul da ngay daw te man gis naa aussi benn côté Sénégal yéen nañ man dam te gis naa ñëpp ak may ñaanal bi yoon moom vraiment bëgg naa nag yàlla ànd ak man vraiment nag parce que nag il est temps te du du làmb rek laay def ren am na leneen lu ñu waajal nga xam ne yow gis nga fi ma fekk ma doon entraîné ak sama coach may nuyu aussi Salif Diaw moo ma indi fii Salif Diaw l'international ancien vraiment moo ma indi fii boole maa coach bi laaj ma dara moom dama rek demal entraîné ji moo coach bi li ñu waxante sax xaw ma ko vraiment ak ñoom maître Baykoor ak Iko bu l'écran vraiment ak ñoom grand HM vraiment sama copain communauté libanaise bi comme ni ma leen wooye ñoom ñoom Nadia ñoom Yahya Ahmed vraiment ñoom ñëpp ku nekk ñu ngi koy entraîné ñu ngi may jàppale ñu ngi may wax li ñu war a def yëpp dañu ko def met baykoor léegi rek lañ coupé ndeysaan mu ne combat bi lépp lu laaj man dinaa ci ko ci def di nu sama gannaaw yi daan jàpp su ma ko waxee dana xam gannaaw kaari yi da ci daan jàppee ñun daal bi yoon xam naa ne même bu huit kilos la bu dee huit kilos lañ koy def it ñu ngi ñaan yàlla daal lépp luñ ci war a def rek ñu def ko ci ba am ndam incha allah rabbi grand bi pato comme nu koy gars yi di waxee mbëru askan bi nekk mbëru samit policier yi sapeur maanaam koor yëpp la daal ndax ci yaram aussi également ci fitam ak jomam donc loolu mën nañ la ko seedeel parce que gis nañ ko waaye tamit comme ni ñu ko waxee yaa ngi wax ci préparation bi ñu gis ni aussi jamono ji ak euh, lu fi jot am nii muy mbas mi euh, impact bi nga xam ne def na ko à travers déjà ci ci wàllu côté lutte bi surtout mais teewul ni yow comme ni ñu ko waxee gars yi même bu ñu am na lu ñu tere yow yaa ngi ci beneen aspect bi maanaam du tënkuwoo rek ci sol tenue bi rek yaa ngi ci beneen ana lan moo waral loolu. bon ñëpp xam nañ dama nekk mbër mais aussi bi autorisé ma nekk mbër. police autorisé ma rek aussi te pour ma nekk mbër rek nekk sama lu ma neex tamit dañ ma autorisé même su ma nekkee mbër mbër boobu aussi dafa war a jariñ police dara mooy ji côté communication police aussi xam nañ ni lamb tey mën nañu apporter dara ci communication qu'on se dise la vérité parce que lamb la ñëpp di suivre te man xale laa ma am ay xale yu may fréquente ci lamb ji am ay supporters kon ñëpp gis nañ ñu ne tey li acteurs yëpp nañ jël boole seen doole pour sensibiliser te man ñëpp dégg nañ ñu tuddee fi roi de la mobilisation macha allah yàlla na ma yàlla lafal cet ci côté boobu yàlla may na ma benn côté su ma waxee xëy na ni ñu si bàyyi xel moo tax bi ma jógee aussi kilifa yi sawar ci lool ànd ceeg man pour ma sensibiliser nga gis ñu doon joxe ay masque war def yëpp ba tey jii sax xam naa ci ay fan yu néew di nga gis police génne joxe ay masque li ma lay wax nii di nga ko gis waaw boo yeexee def seen interview sax di nga gis waa police jiitu la si di nga joxe ay masque ak waa waa DSP direction de la sécurité publique ñu si ak commissaire Guèye ñoom ñëpp ñu ngi ko doon collaborer am a génn aussi ak benn ñu war a def ay sensibilisation parce que il est temps aussi que gars yi xam que ni police bi wala mbër mi citoyen la sénégalais bu war a xeex jàpp ci xeex bi parce que mbas mi bu fi jógewul kenn du dem ñu gis loolu bu mbaas mi jógee fi duñ mën a bëri football bi day métti ay huit kilos neexul dañu naan dëgg moo tax ñun tey non ñun ñëpp nañ si jàpp ñun mbër yeeg footballeur yeeg ñun ñëpp nañ si jàpp man policier bi tax waxul tey mbër mi mooy wax moo tax man maa ngi woo sama mbokk mbër yëpp ñoom Balla Gaye Bombardier Eumeu Sène continuer leen sensibiliser suñ supporters yi ñu respecté mesures yi garder distance yi xoolal xam ne léegi mu kii même bu ñu tëjee saali aussi na ko ñëpp am compréhension xam ne bu ko tëjee dañ ko war a tëj mu doon loo xam ne suñu intérêt bopp la ñu def ko pour benn moment pour affaire bu jógee fii parce que métti na tamit parce que kenn xamul nu fu muy jógee xamul nu muy wàllante c'est compliqué ñi si dee bëri na ñu ngi jaale ñi si dee yëpp daal waaw. ñu gis ni fan yi sax euh, ci néew gis nañ euh, mbër yëpp commencé di def bokk booloo bennoo Euh, loolu ba nga ko gisee muy initiative boo xamante ni mën nañu ni euh, mbër yëpp la gis nañ Gris Bordeaux gis nañ Modou Lo gis nañ Balla Gaye autour donc ay table sax table table yow en tant que mbër mi tey ana loolu noo ko jàngatee. mais li ma wax rek mooy mbooloo mooy doole te bu ñu bëggee am ndam foog ñuy xàccandoo di dóorandoo il faut pas se état rek la non l' état ne peut pas régler tout <laughs> ngeen baal mais état moom bu ñu ko bëggee seetaan day metti si ñun kenn ku nekk am na benn rôle bi nga xam boo ko joué di nga jàppale état jàppale sa bopp. parce que ñu tous nous sommes dans l' état muy man fonctionnaire bi ak sénégalais lambda am na rôle boo war a joué rôle boobu nag moo waral mbër yi ñoom ay acteurs lañ aussi parce que ay ndaw ñoo topp seen ginnaaw mooy te lamb bu amul aussi mbër yi ay père de famille lañ dafa am lu nekk seen ginnaaw bu doxul day métti si ñun ñëpp de man maa ngi nii tey dafa métti si man métti si neen mbër ñun ñëpp la métti si ñun tey du jël rek parce que am naa fu ma làqoot am lu may cof que wax du ma sensibiliser non a motiver pour ma gën a jege askan wi jege leen wax leen nag ñoom parce que bu ñu fàtte benn affaire ñun bu ñu amee combat ñun la ñu amul jàmm ñun du ñu am jàmm moo tax ñun def rek dañ koy def juste pour ci daal jàppale parce que ministre Matar Ba kon suñu xarit la euh, président aussi suñu xarit ñu bëgg rek mooy jàmm am wér gi yaram am ñu mën si ñu nekkoon bu wér gi yaram amul moom duñ si li ñu nekkoon kon dañuy gën a góorgóorlu rek lu ñu def tamit dañ koy yokk fii ak mbax mbas maa fi moom duñ bàyyi suñ loxo moom ñu gis ni aussi fan yi ci néew am na ci ay actes rafet yu posé surtout si coté bi nga xamante ne mooy couvre-feu bi donte am na ni nga xamante ni ñooñu dañ koy rafetlu mais aussi par contre am na ñoo xamante ni du ñu ko rafetlu ndax dañu naan da koy def juste pour benn ñu gis leen maak yooyu mais ñi la xam dëgg xam la ci millier bi je prends bu doon tey ji ci Facebook bi la commentaire yu baax yi mu rek lañ ciy gis euh, yan difficulté ngay faral di dégg en retour ci yenn wax yi lay jéem a coono yi day am problème day am damay profité aussi pour jéggulu képp kuy samay supporter ak sama bége ak waa police ak ñëpp ci temps yi am na benn affaire bu ñu doon def en live ci loolu laay njëkkee doog a tontu ci loolu mooy Adamo bi nga xam ñëpp dañ ni ennemi public numéro un la day saaga rek man yàlla dafa ma nattoo man ñi dañoo bon man même ñi sax dañ ma def waay man yàlla dafa ma nattoo loolu quoi xale la mu nekk bitim réew aussi am ku ma booleeg moom ne ah booy bi de gis naa ne yow boo waxtaanee moom xëy na dina nga di nga di nga changé ci lu bëri kon dama di am na lu may dem ba tax nit ñi yaakaar ci man que di war naa mën a changer ñenn ñi dix mille problème ñëpp gis nañ ma def fi moom vidéo mu wax vraiment <laughs> ma waxtaan ak moom ñu def émission bu rafet bu neex taw dama wàcce sama bopp parce que man dama ni doomu aadama la bu nekk acteur social war naa man a jël ay nit yu nga xam ne tey donte ni ni mais li ma gën a jaaxal nit ñooñu di critiquer ñoom dañuy seetaan ñooñu ñooñu dañoo am ay vues te ñu ne li wax baaxul ñu def baax te gaa yi dañ leen seetaan ku bi gars yi objectif bi c'était juste tey ñu xool que ni mbedd mi respecté nañ ko au départ mais malheureusement biñ nee ba ci benn moment gis nañ lu nga xam ne tiital nañu parce que gis nañ xale bu jigéen buy daw te xamuñ lu waral daw boobu donc on était obligé tey ñun même bu dee ay mbër kese sax moo génnoon wala benn journaliste moo génnoon te obligé nga xool la xew parce que ñaanu ma ko yàlla boo gisee nit ci condition yooyu tey nga dem bàyyi ko ëllëg nga dégg ñu ne kooku moo dee yow sa waral sax man ma dem jege kooku pour xool la malheureusement nag ak wax ji fi booy bi wax noonu ñu koy jéggalu di ci jéggalu sénégalais parce que ñun moomu suñ bopp ay sportif lañ tey ay image lañ yor di ko gérer te ñaanuñu yàlla aussi am ëllëg dañu si mere du si jéb dama ma aussi du ma sant mais lii ak lii kon loolu aussi dama koy jéggaluwaat samay kilifa jéggaluwaat yi aussi tamit sénégalais yi may suivre parce que image boobu ñu bëri tey neexu leen parce que nee nañ Big Pato ak lii moom war ko def pour ñu comprendre que bi ma koy dugg c'était juste pour wax aadama wu kër doomu aadama la war a mën def ay laay bam sensibiliser wax lu rafet te du saaga te boo xoolee maag moom émission bi def nañ ba pare parce que déggoo mu saaga mi mu doon wax ba jéggalu na président nee na dootul saaga ci ma ne ko loolu mooy yoon citoyen nga waroo di saaga ak kuy beneen affaire bi ñu def mooy dem fekk doomu aadama nga defal ko lu baax wane ko nañ ñi daa àdduna ñaar mosem kii def lu baax ak li def kii def lu am na ñoo dañ ni mën nga ko def doo ko wane ki def lu bon mais li ma jaaxal Sénégal bu dee lu bon ñoom dañuy sawar pour partager ko chaque jour ñaata lañ ci partager ay policiers ci yenn image pour yàq deru police wala yàq deru gendarme wala armée kenn daawu waxal mais tey ñu am benn big bato bam benn mbër la mu nekk suñ dof nekk suñ bàyyi faal di génn xëy na di wane suñu yu baax mais gars dañ ko rafetlu encouragé ko parce que lu baax la ñu doon def tey xëy na moo tax ëllëg di nga gisaat yeneen lu baax la parce que bu baaxul woon samay kilifa duñ ko rafetlu ba war koo defaat te parce que ñun ñëpp lu ñu bëgg mooy defar lu rafet paate booy bu solee tënn bi bàyyi làmb ji sol tënn bi di def sensibiliser sama di loolu dañuy ñaan yàlla ñu mu gën a law parce que bi amul yaakaar moom fi général Abdoulaye Diop moom fi police yu fi nekk ay modèle bëri na wala ay gendarme yu fi nekk man armée bi dafa bëri ay xarit ay copains yoo ne ay capitaine leen tey ñu jàngandoo maagandoo lu ñu bëgg mooy chaque jour ñuy def loo xam te ne dañuy tenue bi juste pour jàppal suñu waa dëkk mais ay sportifs lañ aussi ay porteurs de voix lañ mais bu nekkee porteur de voix aussi dañ ko utiliser dans le bon sens mooy fexe def lu nga xam ne ku ñu gis dañ ñu si naw dañ ñu si respecté benn tache noire moo ca mooy bi ñu ba léegi mooy li ma wax noonu live bi ñu def noonu tombé ci incident boobu mootuñ delloo ginnaaw parce que public baa ñuy seetaan boo delloo ginnaaw tam ñu ñu ne tey bu dee demee ba signé ak ay war a accueillir fii dans au mois de juin ay 3000 personnes yooyu par exemple ay investisseurs war a ñëw war ci def làmb war ci def leneen ak leneen ak leneen kon su dikkee dañuy sant yàlla yàlla mu nuy teg si yoon du suñ coobare yàlla moo ñu siy jàppale manuñ yàlla moo man yàlla mi man aussi moo ñuy dimbali buñ jumee ñu xam ne tayuñ ko man aw ma problème mu ne damaa jum maa ngi jégalu aw ma problème boobu vraiment sénégalais dañ ma respecté man dama leen respecté lépp lu ma def su ma gisee erreur damay reconnaître ah. samay kilifa ay agents yëpp ay waxtaan ñoo man su ma juumee xale bu ndaw bu ma ne da ngaa ñu naa ko wax maa ju ma problème boobu vraiment waaw. Mangok mbokk yi comme ñu koy waxee Big Pato de son vrai nom nit la boo xamante ni comme nuñ koy waxee sans façon nit la bu parce que à travers donc ci ay waxam da koy gëm ni nit wax waaye tamit comme ñun tamit ay ndaw lañ askan bee ñu yónni lépp loo xamante ne askan moo ñu ko yónni à travers Dakarnet rek ci gën leeral moo tax Big Pato kon tey dañuy sololaat euh, mbubu tenue bi bu ñu sololee tenue bi ñu waxaat ci beneen aspect boo xamante ne dafa concerné wàllu police bi. Euh, euh, bu yàggul rek gis nañ fi couvre-feu bi xale yi di toj lu ne ndaxte nee nañ dañoo sonn dañoo maar te pourtant am na ñeneen ñi xam xamante ni bu ñu demee ba ba ba ba mu xatee ci ñoom la ñu commencé di doon lacrymogène yi ñu mel ak yooyu yow booy conseiller xale yi déjà ana lan nga leen di conseiller waaye tamit bu fekkee ne am na yóbbal booy yóbbal moo xam ñu le ak lu mu ci mën a doon pour que mu am entente entre entre ñoom ni muy jaar fa. gis naa mbedd yi ñëpp partout respecté ko di wax ne loolu ah, benn affaire dafa am dafa am ñoom ñoom ne ngeen baal ma quoi bàyyi leen di wane lu ñaaw <laughs> lu ñaaw kenn du ko wane nañ wane lu rafet tey man su ma romoon sax ay xeex nii du ma ko filmer xeex non ma ko filmer damay parce que loolu baaxul sama dëkk parce que ñun dañoo am ay concurrent am na yeneen dëkk yu am ne tey ñuy concurrence Sénégal ci côté éducation ak discipline man su ma wanee lu ñaaw sama dëkk xasuma police Sénégal xasuma population Sénégal mais dëkk bi yëpp laa xas parce que keneen ku toog si mooy Sénégal kon amuñu yar amuñu teggin comme ñoom respecté wuñu sax seen président respecté suñu moo tax man am na yoo xam dama ko wane man lu positif laay wane ma ko mën a wane ma bàyyi benn yoon laa <laughs> ma rek laay moom <laughs> on rek bàyyi ma sama combat jàll quoi ñuy wax ci victoire bi pour vous dire que tey bu ma demee Medina xam nga lan laa fa gis gars yi nañ ko gars yi ñu ngi seen kër yi gars yi dóoruñu dàqantewuñu policiers yi ak civils yi ay doomu ndey duñ ay noon man tey mbër laa mais su ma police ñëwul ci làmb ji du ma mën a bëre parce que sécurité bu amul kenn mën a bëre man footballeur laa su ma ñëwee bu sécurité amul mën a football man basketteur laa bu police ñëwul du ma kon kooku tey c'est un élément essentiel dans mes activités quotidiennes comme ni may wax pour nga dem marché pour nga def lépp tey on a besoin de la police tey tey dañ leen di masawu coono leen gërëm di wax ne ñooñu amuñ seen fay parce aussi fexe moyen de transport parce que gis naa ay mbokk alkaati yi nga xam ne parfois bu ñu wàccee pour ñibbi déplacement bi day métti yooyu aussi yaan si yàlla dafa jàmm ba ñoom ñëpp ñu am ay milliards ay millions sax ay milliards laay wax seen xel gën daal parce que bu seen xel dalee ñoom dañuy gën a daal loolu moom li may conseil jeunesse bi mooy que ni nañ bàyyi bu nguur jógee dogal ñu bëggee obligé wu di gaaf ay sànnante xeer ay affaire ñusuma ñàpp ay lambe golo ku jóg daan yooyu ñu ñooñu ay gré agré ah, noonu yooyu baaxul non non la xam nga ñi gaam ak ñi raas dem bokkuñ tey boo xoolee événement bu amee rek ñu même depuis bi ñu nekkee booy yi gars yi bu ñu daan grève chaque jour da am ñu si daan rax ñoo xam ne nii duñu ay élève sax gars yi agri lool comme nañ bàyyi yooyu yooyu baaxul tey ji jàmm bu amul yow doo ñëw fii man du ñëw fii duma tal sa entraînement ah piscine bi gis nga loo fi gis ndox dangay ngay nangu sangu ba naaxees euh, waaye gis waaw Big Pato tey <laughs> affaire bi laa lay njëkk ndaxte man ni ma la fekk ci biir nga koy yëkkati man de attanuma ko te lii ma gis nii nga koy def bari na de te bu fekkee ni li nga nar a yenn waa ji ah lan ma war a entraînement yu bari gi. man moom temps yëpp damay 3 heures laa fay ñëw 19 heures laa fay jóge daal ma bëgg aussi am fu ma jëm may gërëm aussi Modou Lo sama doom ndey ak waa parcelle 1 ba 26 ak saalu SB Sport bal ma koy fàtte waa Mista yëpp. di gërëm ñoom Bombardier ñoom Balla Gaye mbër yëpp laay wax parce que ñoom yemee nag Modou Lo boo ma ko gërëm particulièrement suñu relation la quoi parce que sama frère la ñuy déggante ak Doro Gaye aussi ma koy gërëm PDG <laughs> madame Gaye yaa ngi mooy dégg yaa raf pour combat bi seen combat la fi ma jëm la fi ma jëm j'ai plus droit à l'erreur dama koy répéter et la répétition et pédagogique damaa jékki-jékki ma toog parce que nit bala ñu lay yedd yaa war a njëkk yedd sa bopp sama combat bi moo mujjee bëri mbooloo bi ma indi ak combat bi ni mu demee loolu suma ci jëlul leçon dootuma avancer ci sama carrière waruma kaf ci combat waruma ñàkkal fu la adversaire waruma xeeb adversaire damay jàpp ni bëriwuma ak alaaj mbéy mais Pikine gépp laay bëreel déjà damay jàpp ni maa ngi bëri waa Guinée waa kër Ama Balde ñëpp parce que combat bi da lay wóor Balde défaillant la sam booy la mais défaillant la tey lu man pour waa ji daan ma da koy def. gis nañ sax bu yàggul mu am benn affaire bu mu def moom ak Adam Mbaye waaw waaw. bëri xale man dañoo dañoo magante ma ak ñoom ñoo bokk génération yi ñëpp ñoo yem maase fi magante amu fi de affaire <laughs> te xel la rek combat bi du yomb de parce que comme que maag Modou Lo bokk kan fi mu toll nii Ama Baldé ak du yomb 2-0 lay doon rek. gis nañ benn vidéo récemment bi nga daal di jàppee El Hadj Mbaye droite loo ko moo droite ci wàllu masque beeg yooyu. yow li nga préparé la woon wala par hasard la woon. non non par hasard la woon parce que nag effectivement dañ doon tourné benn affaire mais li ma wax nii da am benn film bu ñuy joué pour la police nationale ak ay partenaires ñoom Raf Pro ñoom madame Gaye jiite ko madame doomu Diabro kii. Euh, Dora Gaye PDG ñoom tamit ñu ngi leen di remercier parce que gis nañ ñi ngi jàppale état ci côté bu ne ah Dora Gaye amuñ fayam ñun association des veuves de la police nationale bi ñu ci di jàppale orphelin yi kooku tey bu santee dara ñun dañuy sawar pour jàppale parce que comme que ay acteurs sociaux lañ ay image ak suñu voix lañ dañ ko jox dama doon def benn séquence foofu doon tourner benn séquence geste mu yem ci nag ma ne ça fait l'occasion du ma ko raté ma sensibiliser waale ko mu nekk aussi citoyen modèle alaaj mbéykat daf ma bett parce que moo ko arrêté moom xam na ni policier moo taxaw keroog mbër mi taxawul dafa ne tekk déglu su ma ko mënatee woon dañ naan waaw dañoo war a bëree mu jàpp ko tëj na ko parce que man damaa bëgg du ma tricher su ma xasee ba simmi për tëni ba war a bëree damay bëree su ma sooy tëni damay liggéey mais du ko jàpp parce que su ma ko jàppoon keroog du am sens parce que citoyen yi lu ñu bëgg ci ko moom a intéressé surtout parce moom en permanence dañ ko war a takk ci moto ma sensibiliser ko beneen yoon nag bu ñu tasawaatee mu yor motoom boobu takkul masque non wulli yi ma ko nar a wulli moom balaa làmb ji laa koy def li ma koy def waaw suñ solawaatee moom takkul masque ku moom takkul masque maa moom du yomb moom dinaa ko dóor ba ba ba waa mbedd bi àtte ñu waaw. gis nañu aussi benn affaire boo xamante ne man ci à travers ci image laa ko njëkk xoolee yow booy bëre koor yëpp dañuy ñëw macha allah def délégation ñëw assister la yow boo tourné rek ba ñu war a sifle nga xool ci kaw gis sa gaay taxaw sa yaram ni muy def. waaye fi mu toll nii dama la ko wax rek sama yaram di lox nii lu leer laa la lox gi may lox nii tey ko fi mu toll nii man maa ngi xalaat bor yi may yoral gars yi alaaji mbay dama ko war dóor mu daanu wax dama jàpp caxabal wala dama koy dóor damu ndigal yi yàq tànk yi mu ko bëggee daan daan boo xam ne ne top 5 fii ak 5 ans top 5 dootu kenn du fa génn honnêtement parler quoi. mbërum géwal la kada mbërum mbërum géwal la instant yi day non xam nga day seetu nag ñu mu xam say yi ñu koy joxee salade de fruits yi ak xaas bi ko saa waay jox moo génn mu ngi ciy noos rek fi mu toll na noos lu mu mën a noos nee na noos de parce que combat bii nii ay bu moo moo génn nekk nekkee ba ay li mu tëgg xamu ko combat bii nii derby la xam nga ñoom du munul yomb parce que Bombardier defet bi mu njëkkam Pikine la ko amee ca Tyson 2 Pikine roi des arènes Bombardier moo ko nangoon si ñoom Baboy trompé Bombardier fële ñu ñëw Fayda Bercy ñu ñëw daanaat Tyson 2007 tey aussi Eumeu Sène nanguwaat ñun ci kuréel bi moo tax Pikine ñu ak ñoom mënul yomb Ama Baldé Modou Lô aussi dër bi la Pikine moom maa ñoom oh. waaw am na aussi benn image boo xamante ni euh, internet yi ñëpp ci kontaan wax dëgg yàlla nee nañ daal euh, bu fekkee ni citoyen modèle ngay wër koo xamante ni ku baax la koo xamante ni euh, def ta yàlla rek. moo tax nee nañ Big Pato bokk na ci ñoo xamante ne tey boo leen mënoo wax ci social ci lu rafet ci action yu rafet te boole woo ko ci ñu gis benn vidéo bu marqué ñëpp mooy benn soxna su nekkoon en état de grossesse yow ak commissaire bi ngeen daal di koy rawale nu mu demee noonu. pour wax gars yi critiqué dégg naa ginnaaw li waruñ ko wane waruñ ko wane xawma ma ñaata yoon lañ ma yee guddi ay kaaw vol ay kaaw kii commissaire Boña bi nekk Dëngéej mu ngi may dégg. ak famille ñoom Amina Ba ak maire boo xam ne mi ngi Mermoz tëdd naa ba guddi ñu wax ma kaaw femme buñ séquestré ci kër te buñ yeexoon ñun police jëkkër di mën na ko dóor ba mu dee parce que moment bi may intervenir di woo commissaire bi nekk Rufisque ñuy coordonné ba repéré waa bi ñu demee fekk nañ waa ji dóor ko dóor mit ba waa police ñoo jël dossier bi en charge jël femme bi yóbbu ko Youssou Mbagan ci guddi gi commissaire bi ne ma comme que yow yaa ngi dëkk dakaar te kuur fa lañ nekk boo mënee déplacé déplacé nga fekk Youssou nga 3 heures du matin laa dugg si hôpital Youssou Mbargane gis jël si ko te boobu kenn wane wu ko kenn gisu pour dire que loolu ñun suñ quotidien la diñ ci bàkku damay ñaan yàlla chaque jour sama oto bi yàlla na ko yàlla di baaxal carburant ci am ñu koy ma def parce ay doomu aadama ñoo may jàppale te ñi may jàppale ñu may gis bëgguñ ma tudd seen tur nee naa am na ñoom ne bu bu ma tuddee seen tur dañuy loolu ma def sama objective bi c'était juste mu wan sénégalais lambda bi que ne boo toogee ci koñ bi gis cas urgence bul xaar ambulance bul xaar sapeur bu xool police il faut savoir sauver des vies tey man sauver nit ki moom a gën a mu nga ñëw nga koy jaal mais Sénégal fii malheureusement yóbbu njaxal lañ gën a man ko jënd ordonnance di wax ni ñun amuñu mënuñu yàlla moo man yàlla moo ñuy dimbali loolu aussi ay doomu aadama ne parce que dañoo jaar ci souffrance man damaa xamul luy avance bu terrible xam nga. xam naa heure añ añu ma xam naa heure reer reeru ma xam naa heure ndekki ndekkiwu ma comprendre nga loolu boo si jaaree tey li Pawlish naan xam nga boo jaaree ci tumuraanke tey bu la yàlla dimbalee ba nga ñam xorom tuuti wala suukar waroo fàtte démb te aussi tamit suñuy maam aussi dañuy sant yàlla baax parce que man samay maam ñëpp fekk moo seen jamono lu mais maam Saliou Diop sama maam dégg naa lu baax la doon def ci social maam Aliou Bo aussi dafa sancoon dëkk Talla Sylla mi ñu ngay dégg meeru Thiès papaam moo doonoon sama dëkku maam bu tëddee ko ñun social lañ ci juddu fekkoon suñu maam doon ko def ñu continuer si aussi amuñu mënuñu mais lépp luñu man pour jàngale ko nit ñi si lu baax rek dañ ko def parce que loolu lépp jaamu yàlla la waaw may wax ni daal loolu moom sama oto ay nit ak may nañ seetal li may wax xam nga ñaari yoon laay yeb ay nit man corona bi yàllaa ma dimbali de walaal asim ku dee ak sa bàmmeel mais bu doon li ñuy wax yëpp man corona wanaa bu yàgg parce que xam nga ñaari yoon laa jël ay risques yóbbaale ay koy def mënul ma dellu ginnaaw que dama leen fekk situation xam leen fi gis nga ànd kebe ma jël kook yooyu yëpp mais mënu ma si dellu kër keroog maa ngi tooñante directeur police inspecteur ma ne ko kañ la ñuy jël bisu police def ko ma ne ah on va faire si le foofu ñu loué ay bis mettre ko à la ñu koy xalaat aussi police pour def jël ay bisu police wala ñu jël ay bis yoo xam ne nañ koy loué ba ba ma ko waxee dana ma loolu lu rafet la macha allah mu kontaan pour te dire que tey gis nga vraiment kilifa yi ngi def ay effort pour jàppale population bi nañ gën a góorgóorlu rek te gën a gën mais loolu moom vraiment yëfu yàlla la man affaire buy dikkee naturellement la may dikkee noonu du sama man man du sama mamam vraiment. par reconnaissance la waxee wax jooju man aussi par connaissance laay wax ndaxte gis nga nit bu fekkee ni da ngeen nekk. surtout koo xamante ne daf lay aar ci sa lépp loo xamante ne da nga koy def ndax à travers donc ñoom seen liggéey euh, li leen war rek mooy fexe ba population bi nekk aussi ci tranquillité seen sécurité aussi yàlla teg nañ ko ci seen loxo kon doo leen ay adversaire yéen ñi nga xamante ne aussi yéenay suivre euh, Dakarnet comme ni ma koy waxee moom Big Pato di ndaw du Gambien du Nigérian c'est un Sénégalais comme tout le monde mais aussi fu mu mën a dem rek ci ci pays am na fa ay supporters comme ni ñu koy waxee parce que Sénégal la teranga la euh, loolu lépp tey ji moom la bëgg a fii ndax mënoon nay sol tenue bi am leneen lu muy wane kon bu boobaa doo dugg ci ci làmb ji mais làmb ji it la ci moom it mu dugg ca ni fu mu ci nekk rek ci ñaari parti yooyu rek lam ciy mooy mooy mooy lu baax gis leen ko muy seen doom ngeen jàppale ko à ay commentaires yu positif pas yu négatif ndaxte Sénégal la teranga ñu xamee mais nag lii benn laaj la boo xamante ni euh, monsieur Gaëtan Rapathiouli sax moom ma ko wax naa la ko laaj nee na li koy jaaxal mooy euh, à travers ci tali yi day gis ni si c'était en Europe oto ba paanee ci ci ci tali bi ñoom dañ koy fexe ba génn ko évacuer ko tali bi mais gis nañ Sénégal fi oto day paan ci digg bi ñu bàyyi la fa mu créer benn embouteillage ak yéen police lan moo ci rôlam non non depuis que quelque temps on a remarqué une chose aussi que Gaëtan je vais vous répondre a la police aussi fait des efforts sur ça on a à maintes reprises des policiers qui étaient en train d'aider des usagers de la route pour faire déplacer le véhicule. Je vais même vous envoyer une vidéo pour vous aussi nous objectif c'est de faire une police moderne proche de sa population qui fait aussi dans le social donc on est en de faire des efforts ma wax ko ci rek mooy que depuis quelque temps yi ngi gis que yi bu ñu ni dañuy aider ay nit di pousse ay oto di déplacer ay oto ku mel ni naa Malick Niang bu compagnie circulation dama koy félicité moom ak amam yëpp gis naa image après naa la envoyé benn image nga dugal ko ci kii bi man naa ko defoon maa gis benn policier bu kii naa la envoyé ñaari image sax démb rek gis naa benn policier kii bi ma koy c'est très joli naa la envoyé image yooyu nga dugal ko ci aussi waaw. Euh, Monsieur Rapacholi Gaëtan, j'espère que votre lutteur a bien répondu à votre question. C'était tout simplement ça. donc comme comme nuñ ko waxee dañuy daal di boucler li nga xamante ni tey mooy suñu waxtaan ak euh, Big Pato xanaa laaj ko rek euh, ci cadre làmb bi actuellement lan lay jox dig daje supporter am yi ak lan lay lan la leen di préparer comme surprise Big Pato muy nekk kàddu goo xam dañ koy jaare tijaare ko muy lan ngay préparer làmb ji ak euh, lan ngay conseiller déjà say supporter lu mu ci mën a doon yow la ñuy déglu. waaw lu may wax rek ñu gën a góorgóorlu gën mi pour fi. mesure yu ñu kilifa yu jox li ñu def ko mooy ñun mbëri yeeg salle sportive yeeg artistes am nga sama copain ñoom Wally Seck ak ñoom Youssou Ndour ñoom ñëpp vraiment ak ñoom Pape Diouf ñoom moom amee ñëpp a namu spectacle mais nañu xam ne bu mbas mi demul spectacle mënul am ñu gën a góorgóorlu xool nu ñuy xeexee ba mbas mi jóge fi di wax ni képp kuy sama support kuy sama bégg maa ngi lay baal àq la baal àq di wax nit matul doomu aadama lépp lu ñu wax bu jubee ñi ngi sant yàlla buñ amee jum jum aussi ngeen gàgganti ñu xam ne ay ndaw lañ rek bokk ci réew mi bëgg a defar aussi moo ñu tax a jóg comme ni ñu koy waxee rek nit ay nit mooy juum nit ku dul juum amul buñ juumee ñu xam ni dañoo juum buñ defee lu baax aussi ñan yàlla aussi nit ñu copier si mais li gën a am solo tey mooy ñu booloo bennoo maytu xuloo xiiroo ŋaayoo parce que àdduna amul solo nañ bàyyi nettalante ak jëw bi ak wax lu suñu ñu nekkul parce que Sénégal loolu moo ko tas wax ne aussi nañ gën a góor góorgóorlu ci suñuy waajur ak ñi ñu jege doomu aadama daal boo nekkee si àdduna xoolal nooy dajale ah. ñu dajale dafa am solo daal di boole ay nit moo gën di tàqale nit parce que parfois nit ñëw wala si nit loo xam ne wala si benn groupe yow dootoo bëgg a dem sax fréquenté foofu parce que parfois ñu gis ay mbër yoo xam ne ay détails ñoo tax ban Balla Gaye combat Bombardier Balla Gaye dafa taxaw am ñu ne ma saal bi Bombardier Balla Gaye doon kii garaawul ma jël sama responsable parce que bu mañ lu ñaaw ma raté foofu pourtant teewul Balla Gaye mii tax ñuy wax noonu su ma ko woon téléphone léegi su ma soxlaa damay ji parce que xam na ne bi Pato doomu ndayam la donc Sa Thiès bi mu war a ngénte daf ma woo pour te dire que kon ñun nañ yooyu détails yooyu dépassé nañ ko ñu xam ne animosité amatul bopp bi ma njëkkee ne Modou ak Balla mën nañ bokk ci jotaay gars yi gëmuñ fekk maa ngi doon togg bu yàgg keroog bi ñu gisantee Modou ak Balla togg kon mooy li ma wax rek tey gis nga kon li ma doon wax dëg la dama leen man gëw ma ni xiiroo ŋaaya gëw ma ko nañuy fësal lu baax Modou Lo mi ngi may dégg muy Balla Gaye amul kenn ku ne toog ne bi pare mos naa taxaw wax ak man ci man sama mbër xalaatu ko du sama affaire du sama cër nañ xool lu rafet ñu koy def nañ xool lu rafet ñu koy teg ci ay der. Alaaji Mbay moytul di dawal moto sans casque baal dawal génn sa kër sa tooloo mask dina takk masque di takk casque yor ay gants protégé wu. combat bi laay bañ nga yàq ko parce que bu dee ak ragal ak tapet moo tax nga bëgg am damm am traumatisme karaañee xam naa du ko xam traumatisme karaañee nga bëgg am ba doo bëri ji loolu génne wala si boo amoon traumatisme karaañee ma fekk la hôpital di la jël ah danaa la fa fekk yow baal ma de dafa dafa ay ala ay ay alaaji ay alaaji maa ngi dee maa ngi dee maa ngi dee man nag xolo balaa yëpp di ma ciy fekk alaaji xaaral rek ma tàggu sama gars équipe technique bi yëpp ah sama caméraman bu ñaawal bi nga xamante ne nee naa ko mooy l'infatigable également ba côté Ouest euh, Foire juste pour faire un big up à mon conseiller monsieur Rapathioli Gaëtan euh, que que que je bëggal ko sama bopp ah un tubaab c'est un tubaab pas comme les tubaab Gaëtan avec toute sa famille ah euh, madame Ka tout ah ñëpp maa leen ziar ah bébé Sara Rapathioli